asalaamaaleykum mbokki internet yi di leen nuyu bu baax di leen ziar di leen bëggee yi ñuy suivre ah. tey nag ñu ngi fii si école de lutte Balla Gaye Thiatou Daouda Fall woote fii di def point de presse moo war a bëree le 21 janvier ci diggante ki nga xamante ne moom mooy Gine Biof ñu toog ak ki nga xamante ne moom mooy coach am muy Lamine Faye ñëpp xàmmee nañ ko dañ koy bàyyi mu nuyoo ñu dugg ci waxtaan bi Lamine maa ngi lay nuyu. sant ñëpp gërëm ñëpp di nuyu monde entier di nuyu monde de la lutte yëpp di leen gërëm di nuyu mbër yi nuyu bépp kuy yëngu si làmb rek di nuyu waa Géejawaay di nuyu école de lutte Balla Gaye kulli mbër mag ba ndaw di jël nuyoo bi di ko tox ci loxo Balla Gaye 2 rek. ñi nga xam ne mooy seen kilifa ñoom ñëpp mbëri. waaw. Euh, dañuy ñëw ci li nga xamante ne moom mooy combat Thiatou Daouda Fall ak Gine Biof ñu gis ni euh, Thiatou Daouda Fall bi mooy premier sortie ci 2023 2023 euh, bi nan nga gisee combat moom ak Gine. waaj ko rek. waaj ko rek waaj nañ ko nuñ ko war a waajee lépp teg nañ ko ay coono wax dëgg yàlla liñ si namm daal mooy incha allahu rabi samedi ak jàmm yàggatul si simmeekoo di ngeen xam ne tegoon ay coono. ñu gis ni bokk na ci li nga xamante ni moom mooy ci meilleure révélation bi loolu lan moo koy joxe te bu ñu demee ba koy comparé ci diggante moom ak ki nga moom mooy Balla Gaye 2 en tant que coach loolu nan nga ko gisee. non nekkagul maire gars yi ñoo gis meilleur rek ndax déggagul daal di tollagul fenn fii man balaa ma koy concédé comme damay bàyyi ba mu toll fenn fii mais la rek bu nekk si parcours di def yu fi xale pour yegg si kaw. Euh, Gackou 2 ñoom ñëpp gis nañu am nañ combat mais wàccaay combat boobu nan ko waajal ci école de lutte Balla Gaye. waaw tey nga xëy soo xoolee par benn combat ñaar yooyu dafa metti pour bu préparer ko mais comme ñoom ñii ñëpp nii ñu amee combat presque plus de six combats nekk fi ñoom ñëpp ñooy bokk même préparation day gën yomb ci man. ndax liggéey bi day nekk benn. mais su fekkee kii day bëre tey toogaat un mois nga préparer ko loolu day métti mais su baree rek. day métti si man mais yàlla suturaal na ba ñoom ñëpp ñu ngi ci liggéey bi daal. Mhm. Mhm. bu ñëwee ci li nga xamante ne moom mooy actualité bi Zarko ak ki nga xamante ne moom mooy Ada Fass Lamine gis nga combat bi pendant avant ba tey coow li nan nga gisee combat boobu. non c'est que ñaari mbëri ñoo laaj lool rek xëy na seen coow moom làmb ji moo ko laaj rek ndax ñoom ñaari wax dëgg yàlla jaay nañ combat bi. Mhm. neexal nañ ko def nañ ko lépp. moo tax après combat sax faaw mu am tuuti bruit quoi. Mhm. Mhm. ñu gis ni euh, Ada Fass ak Zarko en tant que coach ñu ngi naan problème coaching dafa am ñi ne Ada Fass dafa xawaal ragalaale ki nga xam te ne moom mooy Zarko mais naka nga gisee combat boobu. gis nga Fatma Dia defet su ñëwee lu nekk ngay dégg façon critique bu nekk ngay dégg. Mhm. Ada daa war a daanu rek daanu te ki ko daanu war na koo mën a daan. mais du question de xëy na kët si nag yooyu yëpp dëgg la di nga gis ay failles mais da ngay mal positionné wu pour dugg si quoi. mais nañ xam ne esport la rek Ada daa ñëwoon pour wut si te yaakaar naa ne ay million la def si combat bi préparé ko gis nga li ko topp yëpp su sañoon ndam lay génnee si stade bi Zarko tamit noonu mais nañ xam ne Zarko daa war a daan Ada Fass te war na koo daan du làmb joo xam ne tey jii Zarko day daan Ada Fass ma naan noo fooguma ko woon noonu non Zarko su daanee Ada Fass da ko war a daan aada xale la amagul dara lu muy perte si làmb na kon ne waat liggéeyam rek nekkaat ci li mu war a nekk gën a fonkaat boppam rek. Mhm. retour Zarko nan nga ko gisee ñu gis ne def na trois combats consécutifs yëpp daan ko. waaw dara mais retour baax la làmb moo mel noonu rek xëy na dafa def li tubaab naan reculer pour mieux sauter. Mhm. reculer na te bi mu ñëwee mu ngi sauter sauter bu baax mhm. waaw. Euh, bu ñu ci loolu ñu gis ngeen jëm ci combat. mais balaa combat Sa Thiès ak nga moom mooy Reug Reug Balla Gaye 2 gannaaw ba mu a bëre ki moom mooy Eumeu Sène ñu dégg li nga moom mooy polémique yi ñii ne waru bëri ak Eumeu ne dafa a dem entraîner yi tant que coach en tant que doomu nday Balla Gaye combat boobu a ngi pour le moment fi ne nii man maa ngi concentré wu si combat ñii fi nekk comme Thiatou Daouda Fall Gacko 2 ak ñii ndax xam nga combat boo xam ne ñëwagul xamoo ba xam ren la wala déwén la doo si mën a prononcé wu di dem ñun ñu ngi préparé combat boobu ak di waajal Sa Thiès combat bii nga xam ne moo Reug Reug muy première sorteem ci école bi mhm. yooyu daal si lañ gën a dënmal ko Balla Gaye ndax combat am ñëwagul quoi ndax munuma laa wax ren la mënu ma laa wax déwén la mhm. mais Sa Thiès ak Reug Reug noo gisee combat boobu noonu ñoom ñaar gis nañ ni def nañ fi seen face to face kenn ku nekk indi état de forme euh, critique yi bari wax ji bari mais Sa ak Reug Reug lu bari ne Sa daan rek moom moo ko war ndax euh, puisque Balla Gaye na te ñoom ñaar ñëpp dañoo bokk adversaire en commun ci combat am ak kii est que du am benn pression. non pression du si am Sa mbër la athlète la boo xam ne nii muy combat ak ñàkk combat day na moom moom côté boobu tiituma ko si. Mm-hmm. mais nañ xam ne Sénégal làmb la rek. Mm-hmm. te gis nga ki yor ñoo décision bi pare na bu yàgg muy yàlla. yàlla pare na bu yàgg xam na kii daan. ñun dañuy am yéene ak mottali rek. Mm-hmm. ak waqiirlu pour nekk si loo xam ne ni moo ñu war a may ndam. mais yàlla pare na démb. tey doog ñëw di ñaanal Sa rek ñu yegg seeg jàmm suñu borom defal ko ndam bu sedd guy. ok ñoom ñaar ci bëre kan moo dàq bëre. ñii tax ngeen Sa moo parce que moom laa xam mooy sama athlète. te bëre bi mu yor wóolu naa ko. te mën na see daan ku nekk. Sa Thiès uh-huh. mën na daan ku nekk. Uh-huh. c'est làmb ji dañ koo umpale rek. ndax ko ñoo Sa Thiès teeyul wala nangam ak sànq patati patata. Mm-hmm. gis nga soo mënee bëre. Mm-hmm. woolu sa bopp waroo xaar. Mm-hmm. te xëy na moom loolu rek lay demee loolu la rek mais Reug Reug tamit mbër la champion la ñëpp xam nañ ni mën naa bëre. ndax def na fi ay jalooreem. mais man su ma doon teg man am naa droit ne moo dàq bëre. mais kan Sa Thiès. pression comme. ndax ñu bari dañ ne moom la ñuy xaar combat bi gagné rek moo ko war. waaw luy loolu Reug Reug gagné waru ko moom. wala Reug Reug kon amul pression moom it. est-ce ëpp leen pression. Hmm. que Sadio Sadio man pour man nii Sadio du ma gis sax si kanamam di liir ni am na pression wax dëgg su yàlla rek taxee ma ak bëgg wax dëgg rek gisuma pression si kanamam. xam naan daal mu ngi waaj. lépp lu mu waaj xalaat pour yàlla sunu borom defal ko ndam mu ngi ci. mais gisuma ci moom pression wax dëgg yàlla ndax nit moom suy liggéey. xëy di liggéey di entraîné ji. di tëdd di noppalu di lekk ba suur. di bàyyi li mu war a dox mu koy dox. kooku jàpp ma ne am na pression. ok mhm. actualté oblige bien vrai que ni nekku ci ci li nga xamante ni ñoom ñooy sa mooy gis nañu fan yi li posé problème muy combat royal Modou dafa waroon a bëri ki nga xamante ni moom mooy Ama Baldé euh, mu feebar Ama Baldé tamit waroon a bëri Gris Bordeaux am blessure ñu gis ci combat royal dafa xaw a posé te Modou Lo bi pare na Modou Lo Ama Baldé Modou Lo Boy Niang en tant que coach ah, bien vrai que tamit nekkoo foofu noonu mais combat royal bi nan nga ko gisee puisque actualité la. xam nga wax nga wax ji yëpp te tënk nga wax ji yëpp ba wax nga ba tënk sa bopp. Hmm. mooy nee nga ma nekkoo foofu. Hmm. mais ak comme actualité bi nan nga ko gisee. lépp lu ma ci wax rek damay juum. comme combat royal. lépp lu ma ci wax rek xam nga lan laay bañ juum. xam nga nit tamit sooy wax da ngay wax loo maîtriser. Mhm. wala ñoo nekkal. Mhm. mais muy kaawu Ama Balde. Mhm. kaawu Modou Lo kaawu Boy Niang xaw ma sax làmb ji ni ni ngeen si am nii rek laa ci am. mais combat royal laax loo ko gisee non waxuma pour mais noo gisee combat royal. luy combat royal. comme puisque nekk roi des arènes. pare na ubbi na ay buntam. mais nan nga gisee loolu comme retour am ci combat royal booy bu ma njëkk ah di ko ñaanal daal su fekkee Ama Balde la am yàlla na Ama am dam wax ni waaw man moom Ama dama ko faral quoi te dawuma si dara nëbbuma ko keneen ku mu amal nag ñoo xam que gañ mais su dee su dee Ama la am mhm. yàlla na ko Ama daan mën naa nekk xaw ma Ama li mu wax ak li mu waxul de man damaa wax sama yéene ak sama xol ak sama ñaan dama su dee Ama am yàlla na Ama am ndam bu dee Boy la am déggoo li wax que le kontaan naa ci yow waaw ñoo far am sorry nee na ayoo sori ah déggoo kii déggalu ma